comme ni niñ ko xamee waaw tay di suñ darsu ñeenteel yaa xanaa léegi nag ñu war a commencé waye jibu alayhi xifzu lisaani démb ñu jàngoon tuub mu nekkoon lu am solo yaatu loon nañ ci waaw ku nekk nag war na di ko taqoo ndax am solo ku mu am solo moom tuub parce que yàlla sax dalay bëgg parce que yàlla moo ne inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahhirin yàlla dafa bëgg ñi nga xam ne dañuy tuub loolu rek jar na ngay tuub foo toll yow ngir yàlla bëgg la bëggeelu yàlla amul lu gën a foor amul lu ko gën amul lu gën a kawe léegi tey ñi ngi war a dajee dalee wa yajibu alayhi xifdu lisaanihi min alfaxshaai walkalaami alqabixi ba mu jeex <clears throat> nee na wa yajibu dina war alayhi ci mukallaf bi mm, wa yajibu dina war alayhi ci moom mu mukallaf bi xifdu lisaanihi mu wëttu làmmiñam min alfaxshaai ci ñaawteef walkalaamil qabixi ak wax ju bon nee na ba dafa war ci mukallaf mu téye làmmiñam ci lepp lo xamne ñaawteef la lu haram lañ nga ko ci sa lamagne ak wax jo xamne wax ju bon la lepp dafa war ci mukallaf bi mu téye ci lamagne ba bum ko def waaw ba dafa war ci mukallaf bi mu téye ci lamagne ba bum wax wax jo xamne wax ju ñaaw la ju xaraam bum wax wax jo xamne wax ju bon la na ci lamagne ndax lamagne wax deug yalla dafa graw yunus sallallahu alaihi wasallam neena ñu bëri dugg nañ safara te dara yóbbul leen fa lu dul seen ngóobitu làmmiñ waaw te dara yóbbul leen fa lu dul seen làmmiñ rek lañ daan wax moo leen yóbbu safara kon jar na bàyyi xel waaw làmmiñ day alag nit fal maru yaslamu bil lisaani wa yaatabu nit danay muccee ci làmmiñ waaye danay alakoo ci làmmiñam jar na bàyyi xel baax a baax làmmiñ lu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw la kon moo tax na ne woy jibu dana war alayhi ci mukallaf bi ci moom mukallaf bi xifsu lisaan yi mu wëttu laam yi minal faxshaa yi ci ñaawte wal kalaamil xabiixi ak wax ji bon wa aymaani talaaqi ak ngëñal fase wantihaaril muslimi ak gëdd jullit wan wa ihanatihi ak doyadal ko wa sabbihi ak ŋàññi ko wa taxwiifihi ak ragalloo ko fi xayri xaqin sharciyin ci lu duhul xaqi ci luut xaq fi xayri xaqin ci luut xaq sarciyin bay ko jug sariya mooy euh, ci luut xaqi sariya dafa war moom jullit bi mu bañ ko maanaam nee na war na jullit ba tey mu téelaa ma ñoom ci ay maanu talaax nga ñul fase dafa nekk loo xam ne luñ cible ci diina lu diina bañ la kon daal bàyyi ko moo gën waaw inna talaaqa wal itaaqa kilahuma qasamaani inda allahi mamquutaani kon lu waaj waxoon nun yetul xaxtaani boo demee mu ngi foofu nee na fase gën ci fase ak gën ci li moom mooy euh, goreel nee na ngëñ yoo xam ne ngëñ yu yàlla bañ la kon tamit jar naa bàyyi xel ñëw na ci xadis bu ma jumun mu ne laa taxlifu bi talaaqi wala bil ataaqi fa innahuma min aymaanil fusaaq aw kama qaal yonent sallallahu alayhi wa sallam bu leen di gëñ fase bu di gëñ ci goreel ndax ñaar yoy ñaari gëñ la yoo xam ne ñu ngi bokk ci gëñu ci ci ci gëñu kàccoor yi kon jar naa bàyyi xel waaw te nag lu tax mu tudd fi fii wa ay mantar ndax dafa bëri ñu koy fooyee di gëñ ci ay fase yooyu noonu te fooyee ko lu danser la baaxul daal nekkul lu lu lu lu luñ nangu lu diine suspendre la luñ bañ la kon bàyyi xel wa ay maani talaaxi mu tegaat wanti muslimi ak gëdd julit nit ki timit war téye làmmiñam bu mu di gëdd jullit ñi ndax jullit lépp lu koy déranger dañ koy dañ koy tere lépp loo xamante ni soo ko mën na ko lor si zahir wala mu lor ko ci baatin dañ koy tere dañ fatt bunt boobu te gëdd jullit noonu la mel nit boo ko gëddee rek mooy loolu dafa am ñoo xam ne noonu lañ bañ a gëdd sax waaw gëdd jullit jar na bàyyi xel te am na ñoo xam ne noonu lañ bëggee gëddaate te am na ñoo xam ne ba tey sax noonu lañ ko bañee kon gëddaate gi amul njëriñ nañ ko bàyyi euh, moo tax soo xoolee nit sax bu defee dara lu mënta def lu garaaw donte mooy na yàlla def na sariya luy sariya bañ mën nga ko woo nga waxtaan ak moom ndànk noo xamante ni moom dina nangu dina dégg te gëdd du si am mais boo gëddee sax mën naa mën naa fétirlu bañ siisu yaa ngi comprendre te dara warlu ko ngir gëdd gi ko gëdd te boo waxoonoon moom ci dal ak tee rek am li nga bëgg waaye gëdd gi nga gëdd rek mën naa yóbbu mbir mi foo xamante nii yow defar nga jublu woon mais dana gën a yàqu te loolu amul njëriñ waaw ah, moo tax daal oo ko nga waxoo moom ci dal ngiru gëdd te gëdd googu sax dafa xaraam ci yow ndax lépp wax naa la luy mën a loor julli ci zahir wala ci baatin rek maanaam loolu buntu boobu dañ koy fatt dañ koy xaraamal kon oo nga wax moom ci dal ak tee rek am li nga bëgg nit noonu lañuy boo ko naxtaanee wax moom ci wax ju tee rek ah, nga mën a am li nga bëgg ci moom comme lu waaye nag wax fekk ko ci biir mbooloo gëdd dafa dafa nekk loo xam ne nit daanaka duñ ko mënu ko supporter rawatina ci biir mbooloo nag biir mbooloo nga fekk fa di gëdd si ay nawleem loolu loolu dafa am leen lu mu indi su boobaa rek day siisu nangam te boo ko defee woon na leen am li nga bëgg comme lu imaam Saafi di wax mu ne taamad nii bi nusxika fi infiraadi wa jannibni nasihata fi ljamaa fa inna nusxa bayna annaasi nawun min altawbiqi la arda istimaa fa in xaalaftani wa asayta amri fala tajsa isa lam tontu taa imam Saafi mu ne boo may laaya biir ñëwal nga laaya ma biir ci ba ma wéetee nañ nag ma laaya biir ci wéet maanaam xëcc ma ma wéet ñi nga laaya ma biir seen bu baax waaye bul di ma laaya biir ci biir mbooloo wa jannib ni nasihata fil jamaa nga nag lu tax mu ne fa inna nusxa na naasi lawmun nawxun min at tawbiixi laa ardas jama mu ne ndax laay bil ci biir nit ñi maam fekk nit di laay bil ci biir nit ñi sax loolu sax maanaam xeet la maanaam ab xeet la ci yeddaange moo tax man du ma ko d'accord ah nit nga di ko laay bil tam ci biir nit ci biir ay nit mu ne loolu xeet la ci yedd rek dafa mel da nga koy yedd rek mu ne moo tax dama gërëm léegi nag mu ne yow bu fekkee defoo li ma la wax nii maanaam fekk laayama biir ñi ñaar ñu wet waaye da ma fekk ci biir mbooloo di ma fa jéem a biir bu fekkee defoo lool nga dem def leneen ah mu ne kon nag loolu si fekk nag yaa def waaw waaw loolu si fekk nag yaa si yow la bul yedd kenn falaa taji sax isa lam tonto taa mu tegaat si beneen mu ne wa ihanit yi ak doyadal ko doyadal jullit bi moom it dafa nekk lu xaraam troxal jullit bi doyadal ko mooy toroxal ko rek waaw rusloo ko si biir mbooloo yooyu noonu moom tamit yu xaraam la jar na bàyyi xel léeg-léeg nga def jullit dara nag lu ko métti toroxal ko mun la bàyyi naa ak yàlla nga yaakaar ne lu lu lu lu xoyof la fekk doo wax na la lu garaw waaw bu yàlla fayuloo rek mooy lool te ëllëg mën nga ko rëcc wasab bi ak ŋàññi ko ŋàññi jullit bi di ko wax ay saaga ak yooyu noonu xam ne day koy metti si xolam loolu tamit baaxut dafa xaram wa tax wii fii ak ragal loo ko fii xayri xaqin sariya mu ne ngay ragal loo jullit bi encore ci loo xam ne du xàq sariya loolu it dafa xaram ragal jullit bi maanaam di ko xatal di ko teg ay loo xam ne dafay ragal ba nga xam du amati xel mu dal fu mu toll di ragal loolu moom wax dëgg yàlla lu bona bon la moom tamit jar na bàyyi xel waaye mu ne ci loo xam ne nag du xàqi sariya bu fekkee ci xàqi sariya nga ko ragalale nga ragal nag loolu baax na ndax nit bu nekkee ci loo xam ne mooy loolu euh, nga di ko ragal pour mu ragal ba bàyyi loolu loolu moom amu problème waaye nag di ko ragal loo ci loo xamante ne du xàqi sariya loolu baaxul waaw loolu baaxut comme nga di ko jaay doole di ko wan sa doole di ko néewal doole yooyu noonu di ko ragalloo ba nga xam ne moom day xat du amati jàmm loolu kenn du ko def jullit dégg naa sax benn waaye mu ne wala gis naa ko si téere mu ne maanaam bokk na ci ragalloo jullit rek loo xam ne dafa xaraam mooy nga jël xaj di ko yar sa kër dégg nga de walla nga koy bàyyi noonu mu nekk loo xam ne ñëppay ragal jullit ñi kenn du ñeme génn sax ngir doxi soxlaa mi ngir ngir xaj bi nga def sa kër noonu kenn du ñemee génn loolu tamit loraange la mu bokk si ragaloo loolu jullit bi loolu baaxul waaye loolu yëpp nag dafay fekk si loo xam du xàq sariya foofu la xaraamee mais bu fekkee ci xàq sariya la nga ragal looyee di ko tiital pour mu bàyyi lu mu def bu fekkee xaakim bi la mu ne boo leen defee nangam dama leen tëj buur bi di ragaloo nit ñi loolu na pour ñu jub loolu moo amul benn problème waaw ah, mu ko di wax ci nga téye sa bët a wa bañ xool lu xaraam gannaaw bu mu waxee nga téel sa làmmiñ ci lépp loo xam ne dafa xaraam comme ay gëñ gëdd jullit ak doyadal jullit ak ŋàññu ko ragal yooyu yëpp dafa xaraam ci sariya mu ñëw nag ci wàllu bët mu ne wajibu dana war alayhi ci moom mu kalaf bi xifsu basari mu wattu gisam min an nazari ci xool ilal xaraam jëm ci lu mu ne dafa war ci mukkalaf encore une fois mu wattu gisam maanaam mu téye gisam ci lépp loo xam ne dafa xaram bu mu bu mu ko di xool bu mu xool jëm ci awraay nit bu mu xool jëm ci jigéen joo xamante nii xaramut ko astaghfirullah jëm ci jigéen joo xamante nii daganut ko laa bëgg wax yooyu yëpp dafa xaraam na ko moytu di ko bàyyi xel waaw xifsu basari yi mootu gisam min an nasari ilal xaraami comme góor daganut muy xool awraay góor jigéen encore daganut muy xool awraay moromu jigéenam loolu daganut waaw léegi nag léeg nga gis ay juxalaaw ñu réer ñoo xam ne dañu toog naan xool bu njëkk may nañ la ko lan mooy xol bu njëkk xool bu njëkk te tayoo ko kay loolu lañ la may waaye yow nga tay ko xool ba pare naan xol bu njëkk may nañ la ko déedéet luñ la may mooy maanaam da dawal sa bët nga siggi rek dawal sa bët rek xool rek em ci lu xaraam nga gaaw wàcce xaat kon su baa xool boobu garaawul ndax tayuloo ko waaye nag yow nga mu leer la na lee dafa xaraam nga siggi xool ko ba pare naan xool bu njëkk bi laa xool loolu xaraamut déedéet loolu lool lool kenn waxu lool kenn waxu ko waaw toog naan xool bu njëkk bi daa wala wala wala ngay gis koo xamante ni mu siggi xool lu xaraam ba pare naka jàkk naan maa si xool bu njëkk ba léegi xam nga loolu yëfi caaxaan la yëfi caaxaan yooyu mooy lan siggi xool ba mu la neex ba mu leer na lii daa xaraam nag nga nga continuer di xool naan maa ngi si xool bu njëkk xool bu njëkk bi moom may nañ la ko loolu moom amut dama ne xool bi ñu la may mooy xool boo xam ne da koo tëyut nga siggi dawal sa bët rek wala nga dawal sa bët rek daal di yem ci lu xaraam nga dindiwaat sa bët nga teggiwaat sa bët waaw kay loolu moom soo xoolee xool boobu te tëyoo ko jéggal nañ la ko waaye gannaaw bi nga xoolee mu leer lii daa xaraam nga continuer sa xool gi nag moom ah yow yaa ngi caaxaan bul wax naan bii moo xool bu njëkk loolu amut wala mu leer la la ne nangam dafa xaraam nga dem xool ko ba pare mooy xool xool bu njëkk si laa nekk wàcce gu mu sama bët yooyu ay caaxaan la léeg nga dégg ko si nit ñi waaye waaye du du fen fenn dégg nga li ma wax nii mooy lu wér lislaam mayut la fenn nga xool lu xaraam mayut la ko amul xool bu njëkk xool bu mujj mayut la ko xool ko tayoo ko rek. dégg nga de si lañ la ko mayee nga xam ne foofu moom jégal nañ la ko waaye tay ko ba pare naan xool bu njëkk wala tay ko ba pare naan euh, nu mu tudd sax maa ngi si xool bu njëkk ba léegi dégg nga loolu moom amul moo tax mu ne woyu ji bi daan wax alay ci moom xifsu basarihi mu wattu gisam mi a nazari ci xool ila xaraam jëm ci lu xaraam wala yaxillu du dagan lahu ñeel mu kala bi an yanzura ba mu xool ila muslimin jëm si jullit bi nazratin ci xool boo xam ne euh, tuusihi da kay lor mu ne daganut ci jullit muy xool moromu jullitam dagaw na ci mukkalaf ba tey muy xool morom moromu jullitam xoolin boo xam ne daf koy lor moo xam bëti xeebal la koy xool wala bëti nangam loo xamante nii daal jullit bi daal moom xoolin boo bëggut ko bàyyi léeg-léeg nga xool nit mun ne li nga may xoolee neexul na baal waaw ndax dëgganut ngay def loo xamante nii day lor sa moromu jullit moo xam xool la wala leneen moo tax mu ne walaa yaxillu du dagan lahu ñeel mu ko la an yansura ba mu xool ilaa muslimin si jullit bi nazaratin ci boo xam ne tuusi da koy lor mu ne illaa yakuna lu dafa nekk nag moom julit boobu faasixan di ab kàccoor koo xam ne dafa génn topp def nekk mooykat yàlla kon fa jibu dafay war hijraanuhu tong ko sax de dafa wax ne daganut si mu ko la muy xool jullit xool bu koy lor mu ne lu dul julit boobu nag daa nekk kàccoor kon subaa dagan na nga xool ko saaru xool yooyu waaye mu ne dagan na sax nga tong ko far waaw bu fekkee julit bi kàccoor la dagan na nga def ko loolu loolu nag loo si jublu mooy pour jàjj ko pour yéwénal ko pour mu bàyyi li muy def noonu ngir mu bàyyi kàccooram gi mu nekk noonu loolu rek moo tax ñuy wax la loolu waaye bu fekkee loolu moom bu fekkee du loolu moom xool jullit xool bu koy lor wala nga di ko tongu loolu dafa xaram te bu la leeree maanaam maanaam fekkee ne koo xam ne kàccoor la nee na mën nga di ko xool xooli nangam di ko xooli ku jéppi léegi lan moo tax ñu may la loolu pour moom mu xam ne lim nekk nii baaxul mu bokk waaw pour mu xam ne lum lu mu nekk nii baaxul mu bokk waaye bu fekkee ne yow yàlla dafa def ne sa xool yi mënu si dara kon baaxal rek wala sa xool yi da koy gën a yokk kon baal parce que loolu musiba la waaw fu ñu la ko mayee mooy bu fekkee ne boo ko defee loolu sa xool yooyu nga koy xool wala tong wu nga koy tong mooy dagg ko dagg gi nga koy dagg ñàkk wax ak moom loolu mën na koo defar bu fekkee loolu leer na la mën naa tax mu jaaju bàyyi bàyyi lim nekkoon kon mën nga def waaye bu fekkee sa xool yooyu ak sa dagg yi ngay dagg mënu si dara wala sax maanaam da ngay a yokk sax far xé kon baal loolu moom musiba la loolu yoon walaa yexelu dagan lahu ñeel mu a la an yansura ba mu xool ilaa muslim jëm jullit bi nasara ci xool boo xam tuusi yi dagay lor ilaa yëkkoon lu dafa nekk moom jullit bi faasixan di ab kàccoor daganul ngay xool jullit xool bu koy lor kanaa mu nekk kàccoor kon mën nga ko xool saa yooyu ilaa yëkkoon faasixan fay jibu kon dafay war si jiraanu tong ko mu ne kon jullit boobu dafay war sa nga tong ko maanaam dagg ko bàyyi ko définitivement bu fekkee da nga jox xaalis nga tii sa poos pour lan pour mu bàyyi lim nekk noonu loolu yar ko nga si jublu defar ko pour mu génn ci mooy yàlla gum nekk noonu bàyyi ko loolu kese la waaye bu fekkee loolu mënu koo solution nag wala da koy gën a yokk nag jëru ko bu fekkee dafay gën a gën a yokk moom dafa xaraam sax dafa xaraam sax nga di ko tong waaw waaye nag bu dul lii nag mooy bu dul jullit boo xam ne kàccoor la daganul nga di ko tong ndax loolu yonent bi moo ko tere yonent sallallahu alayhi moo ne laa yaxillu li muslimin an yuhaajira axaahu fawqa salaasi layaalin yaltaqiyaani fa yuridu haada wa yuridu haada wa xayruhum allazi yabda'u bisalaam mu ne yonent nee na daganu ci jullit muy tongu mbokkam jullitam maanaam mu koy dagg lu kawe ñetti fan dégg nga ñetti fan yoo xam ne ñoom ñaar ñi ngi dajee suñ dajee rek kii dumóoyu kii dumóoyu dégg nga na loolu loolu daganu ci julit nee na nag ku si gën mooy ku njëkk a nuyu sa morom néew ji sa morom néew ko te euh, maanaam diggante bi baaxaat ko mooy ki gën ci ñoom ñaar paral nañ ci loolu mu ne waye jibu dina war alayhi ci mukallaf bi xifzu jamii jawaarihi jawaarihi mu wëtt mboolem ay ciram waye jibu dina war ci moom mukallaf bi xifzu jamii jawaarihi xifzu jamii jawaarihi mu wëttu mboolem ay cëram mastataa lumman mu ne borom laxdari ne mooy Abdurahman al Axdari nee na dafa war ci mukallaf ba mutu mu wutu ay cëram lu man ba du si moyala yalla mboolem ay cëram yu muy mooy yàlla mboolem ay cër yu nit di moy yalla rek ndax nit cër yu muy mooy yàlla mu ngi toll si julum ñaari cër mu ne yoy yeb dafa war mu teego lu man def lu man ba bañ sa moy yalla julum ñaari cër la ñet yi ngi si bopp yeneen tasaaroo ci bil jëmm ji ñett yi nek si bop moy bët nopp gemi dégg nga ñet yi dañ ci moy yalla legi mu ne ak ban ñett la wax wax naa juróom-ñaar la wax naa ñett mu des ñeent euh, beneen bi mooy loxo yi muy ñeent ah bët nopp gémmiñ ñett ngi noonu loxo yi muy ñeent tànk yi muy lan juróom biir bi muy mooy lekk si lu kon biir bi day duggaale muy juróom benn ak pëyam mooy xawraam muy lan muy juróom-ñaar juróom-ñaar yi cër yi lay nit di mooy yàlla borom lax dëri neen nag war na nga tiigu loo man ba bu si mooy yàlla war nga beneen bi war nga tii sa làmmiñ ba doo si mooy yàlla jàlloon na yuñ sooxoon moom làmmiñ nopp ba doo si déglu lu bon comprendre nga bët ba doo si xool lu xaraam moom tamit yaatal nañ si sa loxo yi ba bu song lu xaraam bul jël loo moomut bul dóor loo dóor bu ray bakkan si sa loxo bul def dara bakkan bu daganu nga raay yooyu yëpp euh, day dugg ci loxo sa tànk yi bu si dox jëm si lu xaram sa sëy sa pëy bi bu si sëyeeg ku la xaram dégg nga de nangam ak nangam ba mu jeex waaw bu si njaaloo bu si def dara ndax yonentu nee na képp ku ma garantul juróom benn ma garantul ko àjjana te bokkoon na si mooy ku ma garantul bëtam ak pëyam ba bañ saa def lu xaram kon juróom-ñaari cër yi lay nit di mooy yàlla juróom-ñaari cër yi borom lax dali nee na fexeel ba wëttu ko ba bu si mooy yàlla dégg léegi nag am na comme wax bi nee na képp koo xamante ni yàlla fegal na ko ay yi daa mel ni faga fegal na ko mboolem ay yi mooy lan man wuxiya sarra xab-xabihi wa laq-laqihi faqad wuxiya sarra la nee na képp ko xam yàlla fegal na ko ayu làmmiñam ak ayu pëyam mu ne koog daa mel ni fegal nañ ko mboolem ay ndax lu ëpp luy jëngal nit dugal ko safara daanaka ñaari la pëyam ak làmmiñam dégg kon moo tax borom la dañ pëy yi mooy yàlla war nga morom cër kon yi ñu mooy yàlla war nga kaa wut sa gémmiñ sa nopp bu si dégg lu xaram sa gémmiñ bu si wax lu xaram sa bët bu si xool lu sa sa biir bu si lekk lu xaram borom xam-xam neen sa nit bu amee bëggee am ijaaba bu mu lekk lu xaram Ibn Abbas nee na laa yaqbalullaahu duaa aman fi batnihi xaram Ibn Abbas nee na yàlla du nangu ñaanu koo xam ne maanaam biir bi lu xaram mu ngi ci kooku yàlla du nangu ñaanam Euh, léegi wa an yuhibba ak muy bëgg lillaahi ngir yàlla dafa war si mukallafam buy bëgg na bëgg rek te yàlla tax bu mu bëgg ngir leneen bu ndax fii bu fekk da ngay bëgg ngir leneen loolu dana jeex te bu keroog yoo nga dënk da rëcc kon looy bëgg ngeen la bëgg ko rek te yàlla tax ndax doo ko rëcc booy bëgg nit di xaritoo moom na yàlla tax waaye bu fekkee yàlla taxut bu keroog yoo nga xiyamee rëcc yàlla nee na al axillaa u yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin nee na xarit yi bu ëllëg yooma xiyaama dañuy bañante ba mu des ñu ragaloon yàlla ñoo xam ne yàlla taxoon ñu ko kon te ñi bëggante ci yàlla ëllëg yooma xiyaama yàlla danay wax ana ñan ñoo bëggante woon ci ngir man ñi ne ñooy ni yàlla ne man danaa leen keral tey bis bi nga xam ne ker amut danaa leen keral sama ker gi kon bëgg bëgg boo koy def na nekk ngir yàlla ndax yonent sallallahu lu wasallam loolu rek la def roy ko si dégg nga wayub xita ak muy bañ lëxu nit ki buy bañ tamit doomu aadama bi nay bañ te yàlla tax jullit bi nay bañ te yàlla tax lépp lu muy bañ waaye bu mu bañ rek teg ko si bànneex kanam dafa dëppoo ak bànneex bakkanam moo tax mu bañ ko déedéet wala kii dama da nga kaa xool rek euh, maanaam euh, moom daal du lay kii daal waaw moo tax nga bañ ko wala kii tiranga ju joy am ci moom moo tax nga bëgg ko déedéet bul def loolu wa an yuhibba lillahi bu bul wax ne kii daal dafa am tiraanga ju may am ci moom moo doon bëgg waaye da nga koy bëgg ngir ne daa bëgg yàlla ak yeneen tam boo koy bañ ci bañ ko ngir loolu ngir ne daa bëgg yàlla ak yonentam ku bañ yàlla ak yonentam moom bëgg bañ ko ku bëgg yàlla ak yonentam bëgg ko waaw nit ki moom fekk mu ngi contrôle yàlla ak yonentam jërul nga koy bëgg su demee ba bëgg nga bëgg ko waaw su demee ba dugg si diine ji nag bëgg ndax saxaaba yi ñoom képp koo xam ne yéeféer la woon ñoom yow la ñuy gën a bañ duñu séq ak yow dara mais saa yoo xamee ne dugg nga si diine ji keroog yow la ñuy gën a bëgg moo taxoon te loolu dafa jër xam moo taxoon yonent bëgg nit bëgg ko ndànk ndax bis man na ñew mu war nga war ka bañ waye boy bañ nit timit bañ ko ndank ndax bis man na ñew nga war ka bëgg waaw ndax nit boo koy bañ te mu nekk ci yéeféer bañ ko ndank ndax bis man na ñew nga war ka bëgg ndax bu tuubé nekk julé da nga ko war bëgg mo tax kon war na nga kon bañun ko ndank kon ndax bu tuubé bëgg ko yomb waye boko ko am am na yenn bañ yoo doon bañ mo loolu waaw nit timit boo koy bëgg amna noko wara bëggé bu mu ëpp ndax ëllëg bu ko dang ko wara bañ ndax bu génné ci diine wala mu nono yalla ak yonentum dégg nga kon wa an yu ba ak muy bëgg li laay ngir yàlla woyu xira muy gërëm muy bañ kon muy bañ lëxu ngir yalla waaw comme sarafu sari ben wa don wax na man nit bu jëlone japon sama loxo dugal ma àjjana ma gis ko muy moy yalla sax duma ko bëgg parce que man yalla rek lay bëggee nit wayar da ak muy gërëm lëxu ngir yalla bu kontaan ni kontaan ngir yalla wayax da ba muy mer lëxu ngir yalla yoonte bi lool yoonte bi sayalon yoloon yalla tax su meree yalla tax ci xotte horma yalla rek mo tax muy mer comme nu saar bi waxoon sëxlu tibaaxi wa kaanal bisru xullatahu xata walaw kaan yalqal xusna wal wajaa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo ko doon fekk rek kanam gi day feeñal mbégte daawul mer donte sax day jànkuwanteeg ay njàqare wala ay mitit moom du sensé kanam moom moom noonu la meloon ne lenn daal moo koy tax a kanam mooy bu nit xottee xorma yàlla xoo loolu moom mënu koo supporté loolu moom da fekk mu mer moom kanam gi sensé kon del def lu dafa war moom mu kalam muy gërëm lahu ngir yàlla wa dafa muy mer lahu ngir yàlla way amuru muy digle bil maaruf ci lu baax wa yanha muy tere anil munkar ci lu bon dafa war te muy teg teg eh, teral lu eh, digle lu baax lu sarian lu sarian rok rok na tere na li baax na dafa war muy digle loolu wayen yanha muy tere anil munkar ci lu bon encore te muy tere lépp loo xam ne dafa bon waaw moom jullit bi daf ko war waaye tamit lu ñu waxoon feere mooy ñëwaat yow bu fekkee sa tere lu bon gi day tax ni mu gën a yokk moom baal bu fekkee ne lenn na boo teree man na kaa saafara kon saaf ah, tere ko waaw kon tereel lu bon waaye tamit ah, digle lu baax waaye bu fekkee ne sooy digle lu baax wala ngay tere lu bon nit ñi mën nañaa siisu naan ah kii dafa rep léegi moom lii la ñuy nañ def nangam léegi gën gën a yokk mbon gi mu ne kon su boobaa yow moom tere lu bon ak digle lu baax wàcc na la <laughs> dégg kon su boobaa wàcc na dafa war bépp julli na mu di ko def di téral lu bax manam di diglu lu euh, lu bax la bëgg wax di téral lu bon bépp julli daf ko war yonent bi na si man ra minkum munkaran yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ku gis ci yeen lo xamne lu bon la nako fi jëlé ak katanam bu ko mané loolu nak ñen amna ñu ko gëna mom moy mooy ak yooyu ñoo gën a ay président ñu yalla jox euh, ab ab ab ab ab ab daraje yoonu ñoo gën a man ñu yàlla jox doole daal nga xam ne pour ay buur yooyu yàlla lañ jox doole mu ne kon képp ku gis lu bon na taxaw dind ko ak kàttanam fay lamesta de fa bi lisaan yi bu fekkee nag mënu ko dind kàttanam na si wax kon ak làmmiñam bu fekkee mënu ko batal na ko méttuli si xolam rek ñu xam ne kon kii lii metti na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñii mu mi yemle foofu dars bi ba bane yoon jërë ngeen jëf